aada saf loxo aada saf loxo mooy borom crevettes yi borom poulet yi borom neem yi yow mi bëgg crevette pané wala poulet pané wala li nga xam ne mooy neem rawatina beñe wala fataaya daw leen gaaw dem sa aada saf loxo rawatina nag yi xeetu jus baax baax jus naturel yi bisab buy daqaar ay waay déggal li bépp xeetu jus boo bëgg rek daw leen gaaw dem sa aada saf loxo loxom moom képp la amul keneen ku mel ni mu aada saf loxo numéro baa ngi noonu 77 470 97 15 ay dëgg-dëgg aada boo jekkoo del baale woy sama ndey consommé local la ñuy wax ay aada

waaw Baye Fall yi maa ngi leen di siyaare di leen màggal yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne dafa amoon lu ma bëgg leeral ndax fan yëpp maa ngi dégg réseaux sociaux nekk yor sa làmmiñ di di wax sama mbokk sëriñ si ñi nga xam nii xamuñ dara yor seen làmmiñ yi ku nekk di kewal dama leen a bëgg leeralal def moo ko ngir lenn damaa gis ku nekk nekk sa ruxu di def ay tricage yoo xam ne nii di ci nax jaamu yàlla ma doon Baye Fallu Sëriñ Touba bokk Sénégal dëkkuma Guinée dëkkuma Mali Sénégal laa dëkk kon su ma gisee ñuy nax sama waa dëkk il est temps nag man ma wax ci wax ci lu leer nañ moo warloon ma ne naa génne lii pour war ko waaw maa ngi leen di siyaare nag bu baax a baax di leen màggal di leen jaajëfal bàyyi faa yi siyaare naa ñëpp lii nag moom du dara mais il faut ma yee gars yi pour ñu ñu leen di nax si mbiru xaalis kaay ma wàccee la xaalis kaay ma def nii kaay ma def nii am na ñu koy def nag ay faux di képp xaalis yi si loxo yi nii képp ma dara maa ngi nii lii sol pour gars yi leeral ko leket tegal diwlin yaakaar naa ne li écrire mu ngi nii ah waaw génn diwlin mu ngi nii ah. yaa ngi gis ñu dem ah. bu leen neexee ñu dem. acca takamayi nakama fakil kumbani fakil duba sinir sudigi bambor tigi bambor nasu karamoko so karamoko nyana ma bamba jiki karamoko mu biya o biya fanji biya fanji may nasu ko jine sigi moko sigi jine sigi moko sigi ko jitu bala bala sabali bala kuli bali na musa na bara man non ko foro koro koro foro dafa mel ne mu ngi ñor waaw lii moom def ko moom pour leeral gars yi la pour ñu bàyyi seen mbelel léegi seen làmmiñ yu rëy yu yor di wax lii du dara mais il foofu ñu def ko pour leeral nit ñi ñun dañaa doon ay Baay Faal yoo xam ne nii Serigne Touba dong moo ñu ñor ak Cheikh Fall ak xeet li jaamu yàlla yi ñu doon ay ndaw nag doon tàng nekk si yoon bi ñëw fekk fii ay kilifa yi ko daan def mu doonoon lu wér kër tey man bu ma demee tey man ba dégg ay sëriñ bu naan damaa yor staff buñ la defal dara nga ne samay staff laay xaar ñu wax ma kon nga doon doo sëriñ artiste nga ah, bu ñu tey man sëriñ yi man damaa man man li ma mës a gis man ci mbiru sëriñ laa laa gis léegi da doon ñëw tey kër sëriñ ñëw fekk mu toog buñ ne la kii mooy sëriñ bi sax doo ko parce que du ko doxee du ko waxee lijjantiwu ko parce que baatin euh, dafa doon loo xam ne nii mbir la moo xam ne nii jaamu yàlla yàlla mooy xool jaamam bu ko nekk mu def ko ci moom kon jarul ndamu Baay Faal bi jarul tiitaru jarul pukkariwu gis loo mën lu ginaar lu ginaar lii lu ginaar xam bay ñami ñami di jëppi jëppi mu ngi ci boppam kuy mu xam ko ne tekk ak moom te bu ko wane woon ñëpp xam ne. ker laa bëgg toggal la woon ker daa woor daa woor ker man loolu bi doo ci naan <laughs> loolu bi dina waaw bagage yi nii de ataaya bi de moom day neex tey boo paree suukar rek wutal ma suukar bu doy rek bu dee ataaya moom ku ko naan <laughs> di fi jóge lool la de lool de lay teg nii hmm. Hmm, lii moom jaaxaluñu sama maam bu mu soxla Sëriñ bu mu saana kër ga waaw li soo gisee lu tax mu bëgg see leewal dama leen di wan ne damaa am benn baat bu may wax tul fu ma lu ma neex laa ciy def muy xaatim bi su ma neexee defaral la xaatim bu ma neexee sa mbaxana bi nga takk laay def tul bi rend la doo ba doo bënn doo fukk wala montre bi nga takk wala seen lu ma tul moom fu ma neex laa koy def si mbaxana bi noonu naa baax bi ñoom na ñëw na koy taxawee. na dem na la. nañ ko na daan moo jël naa dem moom moo jël moom nga jël taw. waaw. boo ko Thank you. waneen loxo yi waaw tul moom fu ma nekk laa koy def bu la neexee téléphone bi nga téye caméra beeg lu la neex bee di soo ma ko joxee ma tubli ko takkal la ku ñeme si yéen yéen ñi di ñoo bokk ma jaar na fii paaxee fii bu la neexee benn ma xam ne ku mu neex rek. Gouz dama. waaye loolu dem yow. naam bu ñëw. waaw. lii moom lu ñuy fooyal léegi waaw. nag gars yi seen naxaate yi dem jàngi baat xamoo leen dara man damaa xamul ana sëriñ ak staff nekk fii yor seen làmmiñ yi rëy làmmiñ bëri wax sëriñu Sénégal yi jaaxal ngeen ma xamoo leen dara Sénégal amul sëriñ xamoo leen tous dama leen ngeen jàngi baat yi te bàyyi seen naxaate yi mën ngeen fen trop xamoo leen dara. aada saf loxo. aada saf loxo mooy borom crevettes yi borom poulet yi borom neem yi yow mi bëgg crevette pane wala poulet pané wala li nga xam ne mooy neem rawatina beñe wala fataaya daw leen gaaw dem sa aada saf loxo rawatina nag yi xeetu jus baax baax jus naturel yi bisaab buy daqaar ay waay déggal li bépp xeetu jus boo bëgg rek daw leen gaaw dem sa aada saf loxo loxom moom képp la amul keneen ku na ni mu aada saf loxo baa ngi noonu 77 470 97 15 ay dëgg-dëgg aada boo jekkoo del baale woy sama ndey conseil local la ñuy wax ay aada